yàlla na ñu suñu borom gën a dolli suñu tawféex ci sëñ bi. wa tawféex. jox la ma tam tawféex tawféex mooy sëñ Touba firi woon na ko nee na ndax xam ngeen la tawféex di wund. Mhm. mu ko bëgg nañ koo xam. Mhm. mu ni bu la nattoo nga bëgg wax ak koo xam ni dafa tëx. Mhm. tëx bi nga woo woo ko du la dégg ndax dafa tëx. mu dem a dema a dem a dem ba sori la lool. lu mat ay dix kilomètres. nga koy séen ca fond ba. mënatoo koo woo rëcc na la. te tey mënatoo jol yuuxu ba mu dégg la te mhm. sori na nga jaaxle loolu naan lu may def ba diw dégg ma parce que mhm. mënoo ko woo mu dégg la nee na yàlla dogal rek mu jékki-jékki mel dafa am lu ko gaar rek mu gestul boppam <laughs> gestu rek seen sa loxo doon daje di ko woo am lu ko ne ee eh, wuyul kii waaw mhm. nee na loolu la ñuy firee tawféex tawféex mooy lu waroon a jafe lool nga naan cëy lii ak a waroon a jafe mu far yomb la lool ba mel ni dafa jàpp ne ñëw wuy si la loolooy tawféex. Eh, am nga tawféex yoo xam ne suñu borom dana boole Sëriñ Tuubaa muy tawféex ju kenn xamul fu mu yem. tawféex nag moom dafa dafa dugg sax ci vocabulaire ñi ko xam ñëpp ci xam day tawféex Sëriñ Tuubaa ju ko yàlla defal. ñun dañoo am tawféex. li wax ne tawféexi sëriñ bi rek. ndax tawféex ju leen yàlla defal. nga xam moom dafay day dund tawféexi sëriñ bi. suñu borom it dimbali ñu leen tawféex jooju am lu ñu ci yàlla suñu borom defal mooy tawféex Sëriñ Tuubaa soo ko gisee sax bëñ ngay njëkk a gis reetaan na reetaan boo xam ni reetaanu àjjana rek nga la lay jox te dégg nga mu ni waa day gën a neex rek day gën a baax rek di gën a taw féex ba biir àjjana taw féex yi ngeen am koo xam ne sëñ sëñ tubaa ngi ngi sa xol maa ngi ñaan ci baaxu sëñ tubaa lii ngeen am mooy taw féex sëñ tubaa ju sell ju wér maa ngi ñaan ku dib taalibe yàlla def ko ci yow mbég mi mbég mi waaw nga xam mbégte moom mooy sëñ Basiiru nag xam nga sëñ Basiiru moom mooy borom mbég mi mhm. borom taar bi ak mbég mi lañ ko doon woowe mhm. waaw sëñ mu Ka doon nag mbég maa ngi nii teeru leen Bachir mhm. waaw doonay Bachiran wa Nazir nga xam ne kon moom mbégte moom la doon da ngeen am tawféex waaye tawféex jooju waxtu ne moom lay ñaan koy ñaan rek ba loolu lay laa lay mujjee ñaan yàlla na nu gën a suñu borom gën a dolli suñu tawféex sëñ bi